bismillah fii niin ak daara yàllaaw sawi baqa abin bi fiika yàllaaw yaa man lawool amru yaa man laa sariika lawo wasi wa ma lig waa ab li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 زاري ملاسي أرجو برحمتي ألا ألا يضر أن منك يا الله مليك يميني وقل بزار يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سريا يا قدوس متليا عني وعن كرادي jumaa ji nga xam ne Serigne Mountakha Mbacké Bassirou moom la liggéeyaat fii ci Porokhane te liggéey bi àgg ba lépp loo xam ne moo war a dem ci jumaa ji ñu def ko mu war koo ubbi nag aljuma dëppook le 21 août 2020 sëriñ Muntaxa ñëw na ci jumaa ji ngir visiter ko xool liggéey bi nga xam ne moom la dénkoon boroomi xam-xam ànd kook ñoom ak mboolem taalibe yi ngir ñu wan ko lépp loo xam ne def nañ ko ci. sëriñ bi bi muy ñëw ànd naag njabootug sëriñ Basiiru gi muy sëriñ Fàllu moom sëriñ Basiiru sëriñ Isaaxa moom sëriñ Basiiru ak sëriñ Moussa Nawel ak sëriñ Bas Poroxaan mi nga xam ne moo nekk ci dëkk bi. ak sëriñ Cheikh Awa Balla moom sëriñ Moustapha Bassirou ak sëriñ Galas moom alxaaji Baara Mbàkke Falilu noonu it la àndeek kilifa yu bari yoo xamantee ni bokkoon nañ ci ñi nga xam ne ñoo doon saytu liggéey bi ñu leeral ko lépp loo xam ne moo jëm ci liggéey bi décoration yi ak lépp loo xam ne def nañ ko ci biir ak ci biti jumaa ji lenn lu ci nekk kilifa yi jël seen temps leeral ko sëriñ bi bu baax a baax نفسي liggéey bu am solo bi nga xam ne nag sëriñ bi moom la dénkoon boroom xam-xam yi te ñu liggéey ko liggéey bu mucc ayib moom bég na ci lool fësal ci ak cantam jëme ci mbooleem ñi nga xamante ni ñoo doon taxawul liggéey bu ni mel moo xam décoration yi la moquette yi bunt yi lépp loo xam ne rek def nañ ko ci leeral nañ ko sëriñ bi mu nekk lool fësal na ci ak mbégteem kon mbokk yi ñu bàyyi leen ngeen teew lu visite bu am solo bi nga xam ne sëriñ Muntaxa Mbàkke Basiiru moom la amal fii ci jumaay Poroxaan ji laata ñu koy inauguré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 طريق لا في كبر بلا كلاف يا متكبر تل كل يا الله يا خالق الخلق لغما أساء أبدا بالبر والسري والرلوان يا الله يا بارع الخلق خذ لنا فدعونا سن وخن لي الأجر للجنات يا الله أنت المساور قل للنبي بسارا وساورا ليادو المكر يا الله خلقت لي كل سن بالقاد أتيت به لزاد بسكريايا غاب يا الله غلبت لي كل سن بالقاد أتيت به لزاد بسكريايا قذار يا الله غلبت لي ربيعك دعي بلا سبب مني عمدتك يا خار يا الله وابتلي منك سهلا فاخمك ألتي فلا كسب ريايا وأبح الله لغوت أزمان اللج يا ملو أموره وغوت لي رصايا رزاق يا الله فتات لي كل بعث بن كنت ذاتئا لأوليائك يا فتاة يا الله علمتني القيبات تعثت منتميئا أنت الأليم الأسيم علمت يا الله خبرت يا قابل أسرى وانصرفت لخير نبيك الأقدار يا الله بسطت يا باسط الأمال لي بريدا فاذكر مباستتي الدارين يا الله بذلك يا باسط الأعمال لي بريضا فاذكر مباسطتي دارين يا الله قبلت يا قافل الأداء لي وما لو لخير نهري بقفل منك يا الله رواك يا رافع دار مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك يا رافع دار مرتبته بلا انقفال بفضل منك يا الله رواك ثباته بلا انقفال بفضل منك يا الله أنت أمري ثلاثي لا ستئي ستئي خلا ويسا واحد بل فيك يا الله أنت المسل لاسي سلا لي ستي ألم سوى الجنوة seytaanu yàllaaw anta samiu lasi naajitu samanan wa bil masaarati li qad jutta yàllaaw anta albasiru lasi li xaada jumlatama lixtarta dunya wa uxra minka yàllaaw أكمت يا أكم باقي بكون يا سا فوزي بما قاب من بسراك يا الله ألاك يا عدل داعي بخير لقاء ولا للعدي ولي قد كنت يا الله أنت لطيف ناسي قد كنت تلي أبدا لطفا عجيبا ياسي ذو الفكرة يا الله أنت الخبير لاسي آية خمرته وخدت لي من كائل ما الغيب يا الله أنت العليم لاسي صحصحت جملة ما لن ترلا أمدي لخير دهر يا الله أذا يسيب لاسي بان لزامة لخوت فلن أسي من منك يا الله أذا الحرار لاسي لقد مغفرة مات يوم برادي بعدت عنك يا الله أنت سكور لاسي كلي لديك ريدا ولي سكرت جمي أسه يا الله